mooy ka xalla ab keex borom jamono jaar 17 avril saa bu yegsee waa Sénégal rawatina ñi nga xamante ne ñooy taalibe murid yi njëkk a xalaat moom mooy bis bi nga xamante ni Cheikh Béthio Thioune doon na ko màggal fa nga xamante ni moom mooy Mbuur ci ma Madinatu Salaam ngir fësal bés ba nga xamante ni sa la dajaloon ak Serigne Saliou Mbacké boobu la bis nag nekkoon le 17 avril 1946 ca dëkk bi ñuy wax Tasset nekk ca biir dëkk bi di Mbuur Diobaas nekk ca biir Thiès mu mel ni nag si taarix li nga dafa jaar ca biir tool ya nga xamante ni moo nekk ca dëkk ba ñoom nekk ci jamono yooyu nag Cheikh Béthio am lu tool ci juróom-ñetti at àndono ki nga xamante ni moom mooy magam di Jile Cuun Cheikh Béthio nag nekkoon ci taalibe yi nga xamante ni lañ gënoon ràññee ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon nekk te kër Serigne Saliou te mu nekkoon ki nga xamante ni jàng na école ndax jot naa jaar fa nga xamante ni moom mooy école nationale bu administration nekkoon tamit ñi gënoon a jege ki nga xamante xamante ni mooy Abdoulaye Wade. moo di sax Cheikh Béthio ñu wax ne mi ngi judd ci atum 1938 fa nga xamante ni mooy Madinul Salaam nekk ca Thiès moom la nag di Cheikh Béthio bokk na ci ñi nga xamante ñoo gën a fësal nga xamante ni mooy daayira yi ci biir école yi ak li nga xamante moom mooy yenn bërëb yi nga xamante ni daanaka ràññoo ñu ko fa woon Cheikh Béthio Thioune tamit nekkoon ki nga xamante ni saa yoo ko déggee rek sa xel li bi njëkk a dem moom mooy bernde bi nga xamante ni daanaka moo gënoon a fës ci nag yi nga xamante ni doon ko gi rawatina ay li mbir yoo xamante ni ak li nga xamante ni mooy giléem ñu koy dugal ci biir Touba jamonoy màggal ak li nga xamante ñi jébbalu ñëpp boole na leen ak man. nee bu nu demee seen yitte yëpp na ko mottalee ci man. nee man mii maay bind seen tur te yónnee ko ko. ñi jébbalu nag na ku ne wax ci sa làmmiñ jébbal naa la sàmm boobu ak naka la moom lii di Cheikh Béthio Thioune nag mi ngi tàmbalee li nga moom mooy nekk jàngalekat fa nga xamante moom mooy Ziguinchor ci dëkk bi ñuy wax laata moo dellu Thiès yoroon benn école fa nga xamante ni mooy Thiès ci champ de course mbiri politique nag taxoon mu daal génn ci wàllu njàngale moomu daal nekk li nga mooy délégué médical laata moo dugg ci biir fonction publique nekk directeur animation rurale ca fa nga xamante mooy Mewane après national d'économie appliquée ñu gën koo xam ca ENEA ci atum 1973 ci la nekk inspecteur d'animation ci département bu Tivaouane laata mu nekk inspecteur régional ca ministère de la jeunesse des sports ci Dakar. Cheikh Béthio tamit jot naa jaar fi nga xamante mooy école nationale d' administration de la ci la génnee ci ab diplôme moo nga xamante mooy Ousmane Tanor Dieng ci atum ci la daal dugg ci ministère de l' nekk administrateur civil laataa ñu ko tabb li nga xamante mooy administrateur municipal bu Diourbel fi nga xamante ni la njëkkee taxawal li nga xamante mooy feetu indépendance te dëkk boobu ci atum ginnaaw ci loolu communauté urbaine du Dakar. waa réew mi mu mel nag at yu mujj yi nag Cheikh Béthio Thioune nekkoon si ay jafe-jafe ginnaaw li nga xamante ni moom mooy élection yi mu génnoon doon jàppale ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Wade ay kàddu yoo doon na koo wax ci ki mooy Macky Sall ginnaaw loolu nag ak coow lu rëy daal di am ca dëkkam ba nga xamante ni fa la nekkoon muy ay nit yoo xamante ni dañ leen a faat ba taxoon ñu daal di koy teg loxo teg tamit lu toll ci fukki nit ci ay taalibeem daal leen tëjoon ci kaso bi ci atum 2012 ki nga xamante ni nag moom moo nekkoon ak mbëkk néegam di Cheikh Faye daal di koy tëj lu toll ci fukki at ak juróom ñeneen ñoo xamante ne daawit ñu yóbboon ci kaso bi tëj leen travaux forcés te sax ñu daal leen ci bi ñu nekk ci ak grâce présidentielle te Macky Sall di koy def Cheikh Béthio nag ñoo xamee ko ak juróomi soxna yoo xamante daanaka kiñ ci gën a xam moom mooy soxna Mbossé Diouf nekk aawo bi ñu gën koo xam ci yaayu kuréel ñaareel bi di soxna Aïcha Kane mi nga xamante ni sax moom moo daal di fàttali date bi nga moom mooy date 17 avril ba Cheikh Béthio di ko màggal saa su nekk soxna Aïda Diallo gi ndax bokkoon na ci ay taalibeem lañ ñu leen di xam ci turu Cantakun soxna Batoor Thiam nekk juriste ak écrivaine moom tamit nekki soxna yi nekkoon ñeenteel bi laata ki nga xamante ni mooy soxna Adja Saayu mi nga xamante ni moom moo nekk juróomeeru soxna bi nga xamante ni moom la cheikh bi mujjee am. ren nag li nga xamante ni moom mooy màggal kooku ñu di ko amal te teewu fi mu daal di génn àdduna ci atum 2019 ki nga xamante ni moo ko fi wuutu di Serigne Saliou Ndigal Thioune moom daal dina woote ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi ñu ñëw fekk ci bis boobu nga xamante ni lañuy màggal ca Madinatu Salaam ca Mbour mu nekk xamante ni dañ li nga ko waaye mu ci woo murid yëpp waaye rawatina ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi ak cantaakon yi ñu ñëw ci bis boobu nga xamante ni la ñuy fàttaliku daje boobu Cheikh Béthio Thioune daje woon ak ki nga xamante ni moom mooy Serigne Saliou Gracias. ka xalla xalkom àdduna di wax yeesal na faalata ab ceex boroom jamono jaar waaje xal xeel kom àdduna di yeesal na faalata ab ceex boroom jamono yoon wi lii ka siiw seex la ni du ñaar dooley Sëriñ Tuubaa ngi boroom faatu ba sëriñ Saaliw di laay ñëw faatali mbiram mooy waxtaane góor yàlla borom jamono jaale yàlla boo koy waxtaane la ko wax si insaanul kaamil borom jamono jaale li mu umpa bu ñu koy laaj mooy insaanul xadim bay Cheikhu Cheikh Sall borom jamono jaale gamma kooka lu mu wax moo di sax cun Cheikh Sall borom wax jaaji abdi lam yashkur ni ko